Salam Mbacke borom alxuraan Serigne Abdou Salam Mbacke mi nga xam ne diggoog lool sunu borom bu lay seetal day mel ni ku jàkkaarloog seetu di la wax ci sa ay mbir mën bayre lool dalay defal bayre ba ku jàkkaarloog yow rek bëgg la fasaasa ku bëgg képp ku la gis dalay jox cofeel am na ay xeetu ndomb yoo xam ne lépp looy xëccoog doomu aadama rek yaay nekk ca kaw ah Serigne Abdou Salam nag bàyyiwul benn yoon waa bitim réew yow mii nga xam ne ay këyit rek mooy sa yitte yow mi nga xam ne sa yoon da ngaa bëgg mu leer naññ dawal gaaw seeti Serigne Abdou Salam Mbacke jëkkër nga bëgg Serigne Abdou Salam daf la ciy defal yow mi bëgg soxna te muy sa yitte lool Serigne Abdou Salam daf ciy def ay ñaan moom mii di Serigne Abdou Salam nag nee na du bàyyi benn yoon ñi nga xam ne dañoo am feebar ndoxum siti hémorroïde wala sax nag ngóor a sonn la lool nee na benn poolaa lay jox meew nga ci def tàngal ba mu tàng jër daal di koy naan rek sa lépp faju képp koo xam ne bëgg nga sa ay aajo faju rek dawal gaaw nga daal di seeti Serigne Abdou Salam Mbacke Dakar Guédiawaye marché Sam numéro téléphone bi di 78 433 78 78 Serigne Abdou Salam Mbacke kéemaanu yàlla rek la ñu door revue de presse bi doore ko stade di yéenekaay Kalidou Koulibaly ak Haaland la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa tey nag jàkkaarloo dina am waat ci diggante Kalidou kulibali ak Haaland ginnaaw trente-huit mois fanweer ak juróom-ñetti weer yoo xam ne ñoom ñaar jàkkaarloo wuñu ñoom ñaar bi ñu gëjee jàkkaarloo mi ngi nekkoon ci atum deux mille dix-neuf soxoloon Ligue des champions jamono jooju Haaland ma nga ca Salzbourg Kalidou Koulibaly ma nga woon ca Napoli tey jii nag dinañu def rénkum jàkkaarloo jàkkaarloo bu vingt heures jotee match boobee Premier League la soxal Chelsea mooy dalal Manchester City kon Haaland ñoo ngi lay xaar Mbaye Diagne mi ngi ci journal bi moom nag mi ngi def jaloore jamono jii ba mu nekk di Fatih Karagümrük doomu Sénégal bi ma ngi fay doxal démb dafa doublé am na neuf but nag ci saison bi ñu nekk di Mbaye Diagne Moussa Ndiaye it mi ngi ci journal bi moom nag milieu de terrain la ca équipe nationale loko bi xam ngeen ne ñoo ngi waajal CHAN 2023 di amee ca Algérie war door le janvier doomu Sénégal bi nag nee na équipe nationale lim bëgg moo di match bu nekk ak nañu koy footballer ak nañuy doxalee ba am ndam ca match boobee muy Moussa Ndiaye nekk milieu de terrain. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay Kalidou Koulibaly ak Haaland le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa tey jii Premier League ba ñoo ngi fay xaar choc bu nar a métti war dox ci diggante Chelsea ak Manchester City bu vingt heures jotee moo tax journal bi nee na. Koulibaly face au monstre Kalidou Koulibaly dina jàkkaarloo tey jii ak jinne ji di Haaland Haaland mi nga xam ne jamono jii ma ngay doxal ca Premier League ba ndax am na vingt 21 bii tey jii mooy jàkkaarloo ak doomu Sénégal bi. kon doomu Sénégal bi tey jii liggéey bu rëy moo ngi koy xaar ca défense ba muy Kalidou Koulibaly. Boy Niang ak ménager am ñoo ngi ci journal bi muy Bourkhane Wade moom nag li mu xam xamle moo di diggante Balla ak Boy ñaar am nañu taxawoon ngir yàqu ko maanaam ngir saboter komba boobee ngir booy Niang numéro 2 bañ a am ndam ci Balla Gaye numéro 2 kàddu yooyu nag du samay kàddu kaddu Borkhane Wade la nekk ménagéru Boy Niang ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Henry Kane la journal bi fësal ca wu njëkk wa démb nag dafa def jaloore ak këlëbam di Tottenham Crystal Palace la ñu doon jàkkaar mu nekkoon match boo xam ne ci ndorte gi nag tàngoon na jër ndax première mi bi kenn dugalut ci sa kangu morom waaye ba ñu ñëwee ci ñaareelu mi bi nag ci la waa Tottenham fippu ànd ak Henry mu dugal ñaari bi match ba jeexee 4-0 jamono ji nag def rafet nañu seen ca Premier League ba ndax ñoo nga ca juróomeelu place ba Manchester United ma ca ñeenteelu place ba ñaari poñ képp la leen rawee démb ndam lu ama am solo la ñu am waaye match boobee nag doomu Sénégal bi di Pape Matar Sarr football na ca lu ëpp vingt minutes ndax soixante-huitième minute ci la ko Conte woo ne ko kaay dugg doomu Sénégal bi doxal ca match boobee kon Antonio Conte lim doon wax fan yii te ñu indiloon leen ko moo di Pape Matar Sarr temps yi mi ngi doxal ci entraînement yi te noppi na ngir may ko temps de jeu loolee mi ngi koy jëfee ndax ñaari matsam yu mujj yëpp da koy football loo muy Pape Matar Sarr nañu ko ñaanal ndax football am na lool yaakaar ci moom. waaye journal bi nag mi ngi artuwaa Tottenham dimanche bii du ñëw bu dellu see Arsenal la ñu war a jàkkaar lool te loolu nag derby la kon match bu mag mu ngi leen di xaar te Arsenal moo jël pee jamono jii ca Premier League ba Arsenal googe sax kii wax ci ñoom tey jii moo di Pep Guardiola mi nga xam ne yàgg na lool ak Mikel Arteta ndax nekkoon na adjoint mi ngi koy artu nag ne jamono jii nag pression bi yëpp ci say wagg la nekk maanaam ci sa ndodd la nekk kon jamono ji waa Arsenal amuñu jàmm ndax ñëpp moom la ñuy gis ndax moo nekk ca kaw loolu la Pep Guardiola yëkkati waaye nee na nag jàpp na ni waa Arsenal dinañu mën a dékku loolu li ko waral moo di ñoom daanaka ñaar fukki at moo ngi ni jëluñu Premier League ndax 2004 ba léegi waa Arsenal jëluñu Premier League kon Mikel Arteta ak waa Arsenal mën nañoo dékku loolu ba jël Premier League bi kàddu yooyu Pep la moo ko yëkkati ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Bellingham la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa mi ngi ci yoon de wutali Real de Madrid loolu la journal bi le ndax doomu Angleterre bi nag jamono ji la ca xel ma di dem ca Real de Madrid naam club yu bari nekk ca Angleterre ñoo ngi koy bëgg di def offre waaye gone gi gisul offre yooyee li mu bëgg moo di dem ca Real de Madrid te gone gi nag yokkagul contrat am ak Borussia Dortmund kon Real Madrid am nañu xel mu dal ngir gone gi ñëw foofee doxal waaye club bu mu nekk di Borussia mun ñoom fa ñu nekkoon jóguñu fa ba léegi nee nañu bu ñu koy jaay cent millions d'euros lañ koy jaayee ku indi cent millions d'euros noppi nañu ngir jaay la ko waa Atlético de Madrid tamit ñoo ngi ci journal bi démb Real Oviedo la ñu doon jàkkaar lool Atlético nag moo ko éliminé waaye match boobee Antoine Griezmann doxal na ca dugalut nag waaye doxal na waaye kenn du gone gii di Barrios Barrios mii nag Atlético de Madrid jëlee ci équipe B ba indi ko ci équipe aba ak tey jii mi ngi doxal ndax ñi ngi am ay ndam waaye match boobee nag deux 0 la jeexee Barrios mii moo dugal ak Marcos yorante ñu am ndam lu ama am solo. waa Séville tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom nag démbu Deportivo Linares la ñu doon jàkkaar lool dóor ko juróomi bal ci dara match boobee nag doomu Maroc bii di El Nesseri doxal na ca ndax ñetti bit la dugal kon kenn du moom waaye match boobee nag ba ñu footballee dix-huit juróom-ñett ci la Matteo mi nga xam ne moo doon arbitré match boobee jox carton rouge Jorge Sampaoli mi nga xam ne mooy tàggat club boobee di Séville waaye am na ñu ndam lu yaatu juróomi bal ci dara la ñu dóor Deportivo Linares ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Jordi Alba le journal bi fësal ca wu njëkk wa ak tiitaangeem démb waa Barcelone gépp dañoo tiitoon bi ñuy jàkkaarloo ak intercity intercity googee nag gita ngaas la tegaloon barcelone ndax match bi miti woon na lool barcelone moo njëkk a mënee benn bal ci dara waa intercity égalisé mu nekk 1-1 ñu doxalaat tuuti barcelone am ñaareelu bit waa intercity feelu ko am ñoomit ñaareelu bit ñu doxalaat tuuti barcelone am ñetteelu bit waa intercity bàyyeeguñu ba léegi ñu égalisé mu nekk 3-3 match bi jeex waaye ba ñu demee ba ca prolongation ba ci la barcelone am ndam Ansu Fati moo dugal ñeenteelu bit bi nga xam ne moo teqale ñaari club yi Barcelone dem ca huitième de finale ya waaye tiitoon nañu lool démbu loolu la journal bi xamle Rodrigo Goes tamit mi ngi ci journal bi moom nag daaw ba ren mooy xitali waa Real de Madrid bërki démbu bi Real di jàkkaarloo ak Cacereño bit ba am ca match ba moo ko dugal su nekkul woon ak moom rek làmbaay mën naa ñaaw kon daaw ba ren mooy sauvé waa Real de Madrid muy Rodrigo Goes loolu la journal bi xamle ñu jugee Madrid wutali Barcelone Barcelone fekk fa esport Ansu Fati la journal bi fësal ca wu njëkk wu match bu dof la ñu gis démb ci diggante Intercity ak waa Barcelone démb nekkoon match bu tàngoon jër trois trois la match ba jeexee waaye yëf nag métti woon na lool ca cëppaandaw ga nag Barcelone dem na ca huitième de finale coupe du roi ba loolu la journal bi le waaye journal bi nee na équipe bi nag bi ñu jógee ca coupe du monde ba ak tey jii doxagul ndax keroog bi ñu jàkkaarloo ak español de Barcelone match nul la ñu am démbit ñu am match nul ca prolongation ba la ñu amee ndam Ansu Fati moo tax Barcelone am ndam kon équipe bi bi ñu jógee ci coupe du bi ak tey bi efficaceul loolee nag war nañu ko càmbar balaa yàgg waaye gone gii nag démb moo sonnal waa Barcelone muy sol sol de Soldevia Soldevia démb ñetti bit la dugal gone gi nag ci fàttali ci ay jamono football na ca Barça bee waaye démb kenn mënu koo téye ñetti bit la dugal waa tàdd dëggal nañu li Liga bi jëloon comme ndogal ci Robert Lewandowski ñetti match lay toog du football kon nag bu Barcelone di jàkkaarloo ak Atlético de Madrid dimanche match boobee Robert Lewandowski du ca bokk ak yeneen ñaari match loolu la journal bi xamle. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Ansu Fati moom it la fësal ca xët wu njëkk wa moo deferaat lépp de ndax bu nekkul woon ak moom rek lambay ñaaw. ndax bit bi tax Barcelone dem ca huitième de finale ya moo ko dugal ca prolongation ba nekkoon match bu dof waaye Ansu moo xittali waa Barcelone waaye journal bi nee na ancien joueur Barcelone nag moo xañ démbu Barcelone jàmm muy Soldevia Soldevia mi jaar na ca Barcelone waaye démbu moo xañ Barcelone jàmm ba bëggoon a xëpp ci cere ji suuf waaye mbir ma kat mujjul sotti ca cëppaandaw ga Barcelone moo qualifié dem ci huitième de finale ya ñu juge Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport attaquant Inter bi di Edin Dzeko le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Edin na mondial bi de muy lan defet bi nga xam ne teg na ko waa Napoli Napoli nag saison bii ñu nekk déggagul woon mu ñël moo xam Serie A boobee la ak Ligue des champions ak yeneen compétition yi moom cundum nag ca Europe moo déggagul woon muñal démb nag dégg na ko Inter moo ko dóor benn bal ci dara kon loolu jeex na waa AC Milan tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom it démb am nañu ndam lu ama am solo ci kaw Salernitana bu Boulaye Dia ñaari bal ci benn la ko dóor jamono ji nag Napoli ma ca bopp classement ba juróomi boñ képp la leen rawee kon jamono ji ña ngay doxal waa Juve tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom démb ca CNC la ñu demoon foofee nag dañu faa am ndam lu ama am solo benn bal ci dara la ñu ko dóor jamono ji ñoom it dëggal nañu seen bopp ci troisième place ba muy yuufee ànd ak Maximiliano Allegri ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Edin Dzeko la journal bi fësal ca wu njëkk wa Inter nag jamono jii ñoo ngi woy ndax ki te woon ñëpp moom la ñu dóor muy Napoli benn bal ci dara la ñu ko dóor démb kon jamono jii nag Inter ubbiwaat na yoon wi ngir scudetto bi gën a neex loolu la surnal bi xam xamle waa AC Milan tamit ñu ngi doxal ndax jamono jii gën nañoo jege Napoli waaye Juve tamit